Assalamualaikum warahmatullah. Hi guys, how you doing? English for Wolof speakers. Anglais ngeen ñi dégg Wolof. Welcome back to this lesson. Okay. Page 14. Xët fukk fukk ñeent. I'm not hungry. I'm not hungry. I'm not I don't believe you. I don't believe you. I don't believe you. Gëmuma la. Gëmuma la. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Yaakaaruma ko. Yaakaaruma ko. Foogewuma ko. I don't think so. It's not your business. It's not your business wala nga ne it's none of your business it's none of your business mooy sa yoon nekku ci maanaam benn mbir nga benn di ko faam di ko femme xaw ma ne ko sa yoon nekku ci daal mbir mi sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci it's not your business it's none of your business it's none of your business please write it down for me please write it down for me please write it down for me baal ma nga bindal ma ko ngay sàkk benn waay mu bindal a ab benn benn mbir nga ne ko please write it down for me baal ma nga bindal ma ko please write it down for me baal ma nga bindal ma ko see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow mooy ba suba nga doon eh, tàggatoo sa waay ngeen tëdd ba suba wala nga ne ko ba suba ak jàmm daal ba suba see you tomorrow danañu gisee suba ba suba àddama see you tomorrow wala nga ne ko see you on Monday see you on Monday ba altine see you on Monday bi topp mooy I'm sorry I'm sorry I'm sorry maa ngi jéggalu maa ngi baalu maa ngi tuub I'm sorry next one guys mooy I'm just joking I'm just joking I'm just joking mooy damay tooñ rek damay foo rek I'm just joking no problem no problem no problem amul solo amul jafe-jafe bi topp mooy my English is not very good my English is not very good mooy sama anglais dëgërul bu baax nag wala dégguma anglais bu baax daal my English is not very good my English is not very good I want to learn Arabic I want to learn Arabic I want to learn Arabic mooy dama bëgg a jàng arab dama bëgg a jàng arab bëgg a jàng arab I want to learn Arabic how much does it cost boo laajte wàllum njëg man nga ne how much does it cost mooy ñaata lay jar mbir mi ñaata lay jar fu njëg gitol toll how much does it cost ci topp do you have money do you have money do you have money ndax am nga xaalis ndax yor nga xaalis do you have money next one guys mooy it's over here it's over here mooy moo ngi fii ma mbir mi ma ne moo ngi fii it's over here moo ngi fii fii la wala nga ne ko it's over there it's over there moo ngi fee wala moo ngi fële lu la xaw a soritu donc here mooy fii there mooy fële lu a soritut fee wala fële mooy there donc it's over there moo ngi fële moo ngi fee all right next one guys my what is this what is this lii lan la lii mooy lan comme mu ñor benn mbir ngay ngay laajte maanaam nga ko what is this lii lan la all next one guys mooy what is that donc this kon mooy loolu jege that mooy la wala lee lee lan la what is that donc this mooy benn mbir bu la jege that mooy lu lu xaw a sori tuut what is this lii lan la what is that lee lan la loolu lan la all right next time guys going what did you do yesterday what did you do yesterday mooy lan nga def démb loo def demb yesterday mooy démb what did you do yesterday loo def démb lan nga def demb lan nga defoon démb what are you going to do tomorrow what are you going to do tomorrow mooy lan ngay def suba looy def suba what are you going to do tomorrow Abdou what are you going to do tomorrow my friend deuxième mooy do you like tea <clears throat> do you like tea mooy ndax bëgg nga ataaya ndax bëgg nga ataaya do you like tea donc tea mooy ataaya do you like tea stop mooy I was at home I was at home mooy maa ngi woon ca kër ga ca kër ga laa nekkoon I was to be lañ conjugué ko passé I was at home bi topp mooy send me a message send me a message send me mooy yónnee ma ab bataaxal yónnee ma ab message send me a message bi topp mooy I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry mooy dama yàkkamti dama yàkkamti je suis pressé I'm in a hurry mën nga def contraction bi mu jox la I'm in a hurry I'm in a hurry dama yàkkamti alright next one guys mooy he wants to sleep mooy dafa bëgg nelaw bu dee góor bu dee she mooy jigéen she want to sleep mooy dafa bëgg nelaw gis nga ne olof kon amul xaajale foofu noonu dafa bëgg nelaw bu ko waxee mën na doon góor ki bëgg nelaw mën na doon góor mën na doon jigéen bu dee anglais xaajale bu dee góor nga naan he bu dee jigéen nga ne she he wants to sleep she wants dafa bëgg nelaw donc sleep mooy nelaw to sleep verbe jëf oral bi ki mooy when do you want to come when do you want to come kañ nga bëgg a ñëw when do you want to come kañ nga bëgg a ñëw bi ci my mother is cooking dinner my mother is cooking dinner mooy sama yaay dafay togg reer donc jamono bi ñu wax ni don present continuous la my mother is cooking dinner sama yaay moo ngi togg reer alright to cook mooy verbe bi mooy togg cuisiner sama yaay moo ngi togg reer alright guys song kon loolu la ñu woon tey am yaakaar baax na solo thank you all for listening and I'll see next one see you next time Thank you. Hello everyone. Ah, da nga bëgg jàng angale jaarale ko ci làkk wolof lu mën a nekk la dañu faral di joxe ay cours whatsapp ci ay groupe ci loo xam ne inscription bi deux mille seize ans la weeru dee trois mille kon loolu yomb na gaay si koo xam ne da nga bëgg a jàng angale jaarale ko ci làkk wolof da ñu jokk ci numéro boobu di double zero 33 bi 758 40 87 55. jàng angale jaarale ko ci wolof lañu wax jàng ci saw làkk lu mën a lekk la thank you guys hope to see you there